ginnaaw daal mu ànd ak ay soldaaram demoon ca toolu xare ba di jàmmaarloo ak ay rebelle am na fa ay gaañu gaañu nag mujj daal wuy ji boromam. ndax moom moom président boo xam ne moom ñaare da daan sol tréyam ànd ak ay militaire am daan wàcc ci terrain bi ndax moom soldaar la euh, ci armée euh, kilifa gu mag la ca woon te ña ngi ko formé fële ci réewum France euh, waaye daal nañu nag bi yoon moom demewul nam daan demee. daan wàcc ci terrain bi daan ànd ak militaire xeex ba dellu dellu ca palais boobee ñu woowee palais palais rouge te N'Djamena waaye daal bi yoon nee ñu dafa am ay gaañ gaañ ca toolu xare ba jaare fa ñàkk bakkanam moom nag ci fàttali bi ngi dàq kii di seen abré ci bopp réew ma réewum Tchad moom ci di ñaari fan ci weeru décembre 1990 ginnaaw France daal ko xam ne ñu France jàppale nag baax a baax ñaari fan lañ ko teg muy le 4 décembre ñuy fal ko mu nekk le président du conseil d' état nekkandi ca bopp réew ma euh, daal. gannaaw bi nag ñu amal fay élection présidentielle ci atum 1996 mu gañe ko gañe deux élection 2001 yi ci atum mu daal di soppi limitation des mandats am daal amatul daal ay nombre de mandats yoo xam te ni man dañ koy limité loolu may ko nag mu gañe fa ay yooni yoon euh, euh, élection présidentielle boobu yàggul dara ci 2020 bi rek ci mois d' avril bi fan lañ ko pour mu à sixième mandat juróom-benneelu mandat ngir mu jiite ko réew moom muy dëréem Tchad waaye nag daal nañu wuy jën jii le 20 avril euh, 2021 ginnaaw bi nga xam te ni kii di euh, Idriss Déby euh, wuy ji na boromam dañu itam kii nga xam te ni moo di doomam ju góor ju ñuy wax Mahammed Idriss Déby la ñu fal mu nekk président du conseil militaire de transition de la république du Tchad mu nekk ni daal njiitu réew ma ba korok yeneen élection yi ñu fay amal dañu nekk moom moom officier de l'armée la te it am am d'état la waaye daal moom fal lañ ko ngir mu euh, nekk di ca bopp réew ma ba jëmmi jamono